kaddu gi nan nga gisee combat bi kaddu gi nan nga gisee combat bi. waaw non combat bi moom combat bi moom waaye xoolal combat bi moom moo gis dangay juum ci wax dara dangay juum ñaari xale yu am doole lañu dugg ci wax dara dangay juum kii jaago la kii jaago bu tuub la kon moom ñaari jaago la dana sax sax day sax sax koy jégalu ci li mu wax léegi. waaw waaw boo amul wala faa waaw ay mbër lañu rek. dëgg la xale yu xew ci jamono. waaw ah. war a bëri. dëgg la gàtt gee ngoog gàtt gee ak Fadam gàtt gee ak Fadam Fadam gàtt gee ngoog waaw. Xadim Ndiaye ko bind. Xadim Ndiaye ko bind. dëgg la. Papa Sow ziar naa la papa na nga def papa noo àndee tey sa mbër papa ziar naa la papa papa ziar naa la papa na nga def da ngay jàngoo Njuga Jaa nooy naa la Njuga Jaa Njuga Jaa noo àndee sa boy dëgg la. ah. métti na de. Balla Diouf. Balla Diouf nuyu naa la Balla. Cœur de Lion. Cœur de Lion. xool ma Cœur de Lion. et eh, Cœur de Lion. Cœur de Lion nuyu naa la. Balla la nga àndee sa mbër tey. waaw indi nañ ko ci yar ak teggin. waaw. waajal ko nu ñuy waajalee mbër. fekk ci mbër bi mu nekk ci moom. waaw ànd ak moom nag ci yar ak teggin. on est des sportifs. on est venu pour compétir. ñëwuñu pour ñëwuñu pour xuloo. ñu ngi ciy woo Sénégal ñëpp nag. mais nan nga gisee stade bu fees dal bi tey. lii tey dafa war a jàngal monde làmb ñëpp. que ni làmb waruñu jël làmb def ko seen tekkikaay. nga ñuy yombal billet yi. di may booy chance. ah di làmb vraiment. billet 2000. waaw 3000 5000 10000. dëgg la moo tax làmb ji fees. tey waa jàmbaar war nañ ni. Ah, ah. làmb buñ ko yombalee rek. Ah. sénégalais yi ñëw seen al làmb. mon frère jaar naa la. nan nga nan nga gisee Franc tey. le moral est bon. il est en pleine forme. en pleine forme. un athlète complet. Franc oui Franc. yaa Ousa Sow. station nah, ngi nii eh la jële ba jële tey ki aar kan la franc franc mooy kan franc mooy champion d'Afrique ah ah kele bi lan la kele bi lan la kele bi mooy mu bëre bëre kaw ba ñem xañ sopp ba ñu jàpp jàpp di bëri moom bëre su ko defee moom moom kii mooy la Ronaldinho sama xarit eh may leen ma franc Franc xoolal Franc nu muy sotteekoo Franc ngi sotteeku Franc ngi sotteeku Franc nuyu naa la Franc Franc ngi sotteeku Franc ngi sotteeku grand na nga def Franc ngi sotteeku grand yaa ngi ñàngal rek grand yaa ngi ñàngal de loolu la ngay ñàngal lu la pression bi la non noo tudd. Edouard Diouf la Diop. Edouard nu mu demee. jaar naa la. et eh, Franc. É pra... ma ci loolu Edouard may ma ci loolu ma ma diw Papa Sow mook Garga doo mook Garga nanga you. way ah, la la la la la la lamb ji am na solo Franc ngi way Franc lii lan la mon frère mon frère concentré wu nga mon frère concentré wu nga ah mu ngi koy yëngal mu ngi koy yëngal mu ngi koy yëngal xanaa nii nga yëngalee sox xanaa nii nga yëngalee sox xanaa nii nga yëngalee sox waaw Edouard Bouna Diop também. la Lambalok nuyu naa la mon frère naka mu nag alors cinquante cinquante la wala combat bi cinquante cinquante la wala déedéet kay lu tax lu tax kan mooy favori foo ko teg Ama Baldé ba muy jàkkaarloo Malick Niang waaw ah, Malick Niang moo nekkoon favori dëgg la Ama Baldé waaw Sa Thiès. waaw moom it jàkkaarloo Boy Niang. waaw Sa Thiès la nekkoon favori. dëgg la dangaa daan. dëgg la laa mu doonul favori la ñu ne. kon bii Franc mooy favori. tey combat passement la. tey ban la ñuy def. Ah. tey dañuy xam lu ñu def. Ah. am lu ñu toog. tey euh, tey làmb la. tey saa wala day yéex. newoon naa la newoon naa la réparé. waaw am na combat boo xamante ni du ko may dara. waaw du ko xaar dara. Ah, mais gis nga ni mu demee. moo tax damay bëgg njàmbaari waay boo koy wax mu yàq sa njàmbaar dara dëgg la boo dee la ah. waaye bu daanu combat bi day gaaw non bii mooy nar a gën a gaaw combat bu njëkk bi ba mu gaawee ne yëpp gaaw di yeex du mat bi te si bëre lay jeexee bëre lay jeexee jërëjëf